bis bi nga xam ni dañu koy dafa dëmmal bis bi ñu war a installer euh, les députés yi ñu fal ci euh, quinzième législature bi te coalition ak jàmm ak njariñ bokkoon ci te am ci ay député Babacar euh, jàngat résultat yi buñ ciy ñëw dañuy commencer d'abord ci nu yàlla maye jàmm ak salaam population sénégalaise bi voté ba am ku jiital ñuy tijjee sunu félicitation ci coalition bi nga xam ne ñoom ñoo am ndam euh, muy coalition Pastef euh, parti Pastef et nanu ñaan seen ndam euh, di ndamu Sénégal ñuy ñaan it député yi comme suñuy député ñuy député Sénégal fii nag ci commune Thiès Nord yàlla def na dans la ville de Thiès commune de Thiès Nord moo fi jiitu voix yi na am Euh, ci deux plus de deux mille sept cent cinquante voies yi am dans la ville de Thiès commune de Thiès Nord moom moo ci jiitu euh, ci wàllu département bi mm, commune de Ngoundiane moo ci jiitu ñuy profité di remercier président euh, l'honorable député le maire Mbaye Dione ci liggéey bi def coordonner le département ñu koy félicité ci tey élection yi nga xam ni génn na ci nekk député ñiy félicité aussi le l'ancien maire de la commune de pour ndax ñoom it jàmbaar lañu euh, Moustapha Sarr euh, def na résultat euh, ci ñaari communes yooyu li ndax ma leen cité parce que ñaari commune la yoo xam ne yu Amadou président Amadou Ba teg tànkam fii nag ci Thiès particulièrement la commune de Thiès Nord moo jiitu ci ville de Thiès ñuy remercier ñi nga xam ne ñoo jàpp ñëpp di remercier euh, liggéey bi nga xam ni def nañ ko avant élection yi pendant élection yi war ko continuer après les élections jàngat bi lan la euh, jàngat bi mooy euh, metti woon na nag commune de Thiès Nord dem ci élection yi ndax boo dee xool eh, man mi fi nekkoon candidat nekkoon suppléant et bu nu gañe woon fii ci Thiès man du ma doon député bu nu jiitoon majorité tamit ci gis national man du ma doon député waaye taxul ma des ginnaaw et li ma gën a li gën a yéeme mooy effort bu nu musoon a def maat ñi ma àndal di waa AFP ak waa Bokk Gis-Gis ak waa PIT ak yeneen kii yeneen parti parti socialiste aussi mu am ñeneen ñoo xam ni danoo am wet gu boole bu wax ni fa bokk ñoom neneen ci Amadou Ba bokk ba pare mais di tiitaroo benn. benn leader boo xam ne na moo leen fi teg te di yàq donc yàq-yàq yooyu yëpp ñu jéem boo waxee ñu ne noor yaa problème ba bi Amadou Ba di ñëw fi cees ñaar yoon yëpp dañ koo mobiliser dafa bëgg a njëkk a ñëw ñu préparé wu di ko xaar yàlla def ñooñu teg seen i pexe ñoom ci ñu ko waxee ñoom ñoo koy ndamoo parce que ñoom ñoo yónnee ay message di ko audio di ko wax ni ñoom dinañ fexe ba Amadou Ba ba après élection yi kon ne nañ di ko wax di yoon ne ñun ay message ay audio di ñu wax ni fexe nañ ba Amadou Ba gisoo ko benn yoon gisoo ko ñaar yoon gisoo sax li ñu wax ngelawu Amadou Ba waaye ñàkk gis ngelawu Amadou Ba euh, te nekk ci xolu Amadou Ba loolu am na différence te loolu ñu gën ndax liggéey rek a wóor yàlla def na tey fii ci commune de Thiès noor metti woon na lool Amadou Ba ñaari yoon yi fi ñëwaat ñu ne day rectifier tamit taxul mu jaar fi ndax ñi ko waroon a taxaw fii ñun danoo fii ci commune di ko xaar. ak ñu ko war a xaare am ñoo xam dañ leen teg ay pexe ñu bu fi ñëw donc téye seen i seen i yoxo comme ni nga koy waxee ba pare jël seen i jëmm yóbbu ko ci feneen bañ ko cee xaar lool nu fekkuñu ñu ñu dañoo toog fii ci commune de Thiès Nord di fi liggéey kon buñ fi yàlla doxee ndam li dañ koy sant yàlla dañ koy sant yàlla aussi mu jox ñu loo xam dañ ko war a rappeler Thiès waay bi may nekk fii candidat ci élection mairie ba am fi ay conseil fii am na ñoo xam bu nekk conseiller ñooñu tey bokk nañ représenté beneen liste léegi ñoom bu nu demee ak ñi nga xam ne ñoo doon coordonné benn bokk yaakaar bi ko bëggee coordonné fii pour jaar jiital Amadou Ba pour wane yoon wi ñu gagné ñoom dañ duma ko def tey ñi nekkoon benn bokk yaakaar ak ñi ñi nga xam ne maa leen yóbbaale woon ñu nekk conseil ba nu bokkee ñoom ñaar ci benn liste xamul nga lu nu am 202 voix xaw ma kan moo ci kan moo ci ku nekk 101 la leen koy séddale muy muy muy téeméer benn ku nekk téeméer benn man mën naa kaa multiplier par xam ni kon. la may sant yàlla mooy am na ñeneen ñu bokk ci yeneen aussi ñoo xam ci élection locale yi ci man lan àndi si woon te doonoo yaakaaroon ni li nu am dan ma jàppale ba ma am ko parce que ma damaa liggéey damay sant yàlla Babacar ndaxte li am solo mooy gis nga bi may jox parrainage président Amadou Ba damaa yëkkati nombre de parent yoo xam ni bi ma ko bindee dem jébbal ko ko pour mu dem élection maanaam loolu laa jàpp ne man le minimum mën naa ko ko indi ci voix te buñ ko vérifié woon du am doublon mais gis nga bi élection yi ñëwaatee nii ci législative yi man ma ma bokkaat ci xeexaat ko mais boo xoolee li nga euh, li ma indiwoon ci ci ci parrainage dafa méngoo ndax romb na cinq 500 vois de plus que li ma joxe ci parrainage kon loolu lu muy tekki mooy man wutiwuma gonfle bu ma waxoon ne am naa 3000 parrain ba pare élection jot ma am 1000 voix dinaa rus mais li ma waxoon ne am naa ko moins de 1000 joxewuma ko plus de mille parrains te tey am naa pris de mille fois ëpp na loolu li ma li ma am tey ci voix ce qui veut dire que ni man li ma man sama côté te nga xam ne jàpp naa ne ñii mën naa leen liggéey ñu wër ni buñ nee leen jëm leen ci Amadou Ba dina ko def ci coalition jàmm ak njariñ kon loolu sant yàlla la bu ñeneen banqué seen i yoxo nag man li ma am indi naa ko te li may wutiwaat nag pour beneen yoon dama koy wuti pour échéance yoo xam ni xamuñ yan lay doon ëllëg ñuy ñaan yàlla fekke ko ñëpp fekk ko ñu mën cee dem sans tricher ndax fii ñu jëm nii fii ñu jóge nii dafa bari woon ay tricherie fii ci Thiès te yàlla xam na ni ban koy dénoncer danoo yaakaar ne yàqandi parce que grand man damaa jàpp ni su la nit bindee message ñi la man je ne travaille plus pour Amadou Ba à partir d'aujourd'hui mais kooku buy réclamer pour nekk mandataire centre est-ce koy jox parce que da nga bind message buy dem ci beneen leader naan Ousmane Diop waxuma lii maanaam pour loolu ay yàq la. bu fekkente ni par exemple nit dafay taxaw nga ni yow nanu dàmm nanu jàppale Amadou Ba pour mu nekk président kooku ñëw ñi la man de man du ma nangu Amadou Ba di nekk suñu candidat ci Benno Bokk Yaakaar danaa ci xeex ngay demati président Macky saal ñi téye leen seen jàppale ci Amadou Ba moom moo taxaw woowaat la taxaw ak yow ñi la man du ma ko def yow nga xam ko léegi kooku ñëw tey daan ne élection yi dafa bëgg a jiitu pour bëgg a nekk fii ci Thiès noor pour fexe noo xam ne mu lay teg da ngay kooku da koy seppi teg ko fële ak pression bu mu mën di doon nag dama koo dékku te di ko assumer parce que ñun ñëpp koo ci seppi loxoom parce que da xamoon la mu naroon a dugal ci biir ci biir cin donc loolu moo fi ne ñi nga xamante ne nag ñun xamuñu leen dara lan waree am mandataire jox na leen ko lan war a liggéey ci représentant de vote yi def nañ ko ba nu présenter liste titulaire ak suppléant léegi nag li ci des lépp après beneen ci beneen jotaay dinañ ci expliquer mais yàlla def na liggéey bi nga xam ni ne plénipotentiaire moom lañ santoon def nañ ko ba mu mat sëkk et te yàquñu ci dara dañ doon defar côté campagne bi li nu man def nañ ko animation bi alhamdulilah euh, fi may terminer ci côté boobu rek mooy département de Thiès mbay jonn jàmbaar la ndax résultat yi ñu joxe fii ci département de Thiès ku doon jéem a gëmloo président Amadou Ba ñu ko Thiès nangam tee na war ngaa sëgg région de Thiès wala département de Thiès dafa nekk grenier électoral bu am solo ginnaaw Ndakaaru kon ku xam politique boo dee xool carte bi war ngaa xalaat ni président mënul nekk chef de l'opposition ba pare du teg tànkam fii ci ville de Thiès pour campagne kooku ku ko def def nga erreur politique te doit ku ko mën de da ngaa war a présenter say excuse président Amadou Ba. 395 942 inscrits. inscrits kooku ku ko ku ko bàyyi ba pare mu nekk deuxième ville du Sénégal. depuis l'indépendance musumaa gis kuy dem campagne électorale tegoo foofu sa tànk dugg foofu kon kooka ñi conseil politique yi teg loolu juum nanu jéemuñu xalab kenn mais njuumte daa am mais dañuy wax lan moo tax parce que foo génn a defal bilan parce que ñun bu nu fekkoon ñu fekk ñu ñun ñu bokk ci ñi nga xamante ni nii dañuy joxe xalaat ñun dañ naan loo xam ne mus fee am depuis l'indépendance bu ko def loo xam ne ku ne dëkk boo xam ne ku ne dëkk koy xëccoo comme bi ñuy wax am na benn réunion kenn ñëw di gëmloo ni problème mu sécurité Amadou Ba fekk man damaa teg plan boo xamante ni buñ ci jaaree moom lay defee caravane am toucher commune de Thiès yëpp ak toucher aussi lay les waa ñi ko bëgg gis bëgg a saafonte moom bëgg a ak moom mais am ñoo xam ne bañ lu mel noonu ndax xëy na amuñu amuñu nit ñi wala ànduñu nit ñi wala xëy na am na luñ ciy nëbb ñoom ñi daan ni problème sécurité problème sécurité mais tey man maa taxaw ñi leen yaakaaruma fenn ci Sénégal ku mel ne président Amadou Ba man sama bopp sax ma ko def sa sàkkantuma ak président Amadou Ba fépp foo xam da nga faa war a teg sa tànk benn doomu aadama di sénégalais ndoog fa teg su la état ne déet teg ko ci raison yu valable d'accord mais ci benn sénégalais ñi di mel ni yow di wuti ngay wuti mu ñëw naan na mën naa teg lu la yàqaloo lu la gaañ donte jàmm lañ woote yow ngay naan taxa duma ko def man du ma ko conseillé kenn parce que daaw mu politique noonu donc loolu erreur la boo xam dañ koy rectifier li tax may jaajëfal waa département de Thiès di tudd waa Nooto waa Taseet waa eh, waa Ngunjaan eh, waa eh, Njeen Sirax waa Xombol ak ñëpp ak waa Pout quinze communes département yëpp maa ngi leen di remercier ndax boo xoolee Amadou Ba dafa tijjee Géejawaay te Cees a ëppale Géejawaay te foofu liste jàmm ak njariñ la te intercoalition la kon loolu jàngat la président Amadou Ba coalition bi ñu nga tëjee Pikine Cees moo ëppale Pikine kon loolu jàngat la donc bi ñuy amee neuf mille ñu am six mille Thiès am onze mille neuf cent et près près de douze mille loolu jàngat la kon euh, loolu Thiès dellu ndaare ci quarante six departement vraiment boo dee xool fukki njëkk yi Thiès doon na boo xam à part li ñu gagné Podor ñuy féliciter les candidats de Podor et les acteurs politiques de Podor ñu ngi leen di féliciter ndax sigil ngeen ñu. ak ah, ku ko mën a déglu ku ko mën a Thiès ak Ousmane Diop. Euh, mën na compter ak ñoom Ousmane Diop. Mm-hmm. ndax man la ak ñu bari fii mm-hmm. ak ñu nu àndal mm-hmm. coalition jàmm ak man mën na compter ci Mbaye Dione fii ci Thiès ak Ousmane Diop ñoom Makhtar ak ñoom euh, euh, kii Amadou Camara kon maanaam waa coalition jàmm ak njariñ mën nanoo compter ci ñoom Mbaye Dione ak ñoom Ousmane Diop fii ci Thiès benn bu bu fekkente ni Amadou Bala mën na compter ci Ousmane Diop ak ñoom Ousmane Diop fii ci Thiès Macky ne n'est pas Amadou président Amadou Ba président Amadou Ba n'est pas Macky Sall loolu ça veut tout eh, li mu tekki mooy dafa am loo xam ñi ko doon def jigu leen te man du ma ko def loo président Amadou Ba du ma ko conseil maanaam askan wi dénk la honoré la ban la honorable député nga bëgg a déshonoré sa bopp daan dama ko fay bàyyi déedéet moom bi muy nekk assemblée nationale ñu koy fal ci quatorzième législature président Macky Sall da ko jox primature mu dem fa liggéey fa amul woon lu compatible ak mandat boobu kon loolu xel man na koo nangu mais am na yeneen leader politique yoo xam ne mën naa ci lim ñeent mais du ma ko def bu respect bi ma am ci ñoom ak seen i militant peuple bi da leen daan jénk ñoom ñu rocce parce que daa am ñu leen doon gëmloo naan leen vraiment yéen dépassé ngeen lii da ngeen a wala yow sa dayoo bul def loolu xale da lay yëpp wala assemblée du sa cër déedéet ñooñu jigu ci kenn am na ku ko def jox keneen jigu ko am ku ko def parce que dañ ko ko xeebloo ñu ko tuyee présidentiable jigu ko am koo xam ne doon ko jox parce que liggéeyam na naan matawu ko talu ko jigu ko loolu ki mu jigoon mooy président mm, Abdoulaye Wade te jamono jooju bokkul ak jamono ji ba mu ko daan def dans les années quatre-vingt boobu bokkul ak lii ba tax na man li may gëm li ma gëm ba gëm ko mooy président Amadou Ba dafa war a garder son mandat de député parce que loolu mooy liy jaadu peuple bee ko kii ndax ci loolu ci la mën a sukkandiku pour dem wax ak sénégalais jaar fu mu jaarul woon jaaraat fi mu jaaroon mën a wax am légitimité parler aux sénégalais s'il conserve son mandat de député il aura la légitimité de parler au sénégalais librement et c'est ça son rôle. te dina leen loolu mooy li nga xam ne moom la mus a def te sénégalais ci boppam ñoo koy gën a wekk sax gën ko respecté donc moom cër boobu ko sénégalais yi jox na ko garder. képp koo xam ne nag da ñëw di ko conseiller naan ko génie politique nga naan ko ci mérite plus que ça booba ñu ngi koy dugal ci loo xamante ni du politique ndax daf ko war a garder ba leneen fekk ko ci parce que bu fekkente ni moom dafa dem ñaari élection bii mu jël deuxième parce que exécutif la woon mu dem élection présidentielle kon fu ne président la république moom moo jiite réew mi di jomaay kon moom ma tof koon moom kon dara mënul def lu dul chef de l'opposition kuy wala ngay wax Ousmane Sonko naan ko jéem a la teg leneen lu la la nga nangul jomay nangul ko Amadou Ba Ousmane Sonko doit accepter ah que Amadou Ba nekk euh, président euh, euh, chef de l'opposition ndax moom daf ko nangul ni Diomaye mooy président de la République bis bu defee neneen ak i député mooy ñoom légis d' accord ñu Diomaye mooy président waa coalition Pastef ñoom ñi am majorité à l'Assemblée nationale nanu cohérent su fekkente ni ils ont dit que ni président ñëpp ak peuple sénégalais président jomay moom moo nekk le président de la République ñu accepté ko nan nangu ni ki topp ci moom mooy chef de l'opposition sénégalaise bu nu defee leneen rek dañuy waroo ak seen wax mooy kon wet di gëmuñu ni jomay reconnaître uñu que ni Diomaye mooy président te yaakaar naa ni ñi ñuy doxee war na noo suñu waxee ni président Diomaye ba tax ñu jox seen i ndomba tey lii ñu bëgg a nekk comme député su convoqué wul woon collège bi eh, su convoqué woon session bi kon lii du am kon ñoom bu nu bu nu sukkandiku di def naka sudul noonu ci ay calcul politique ba li président sukkandiku ba woo leen ñu mën a nekk ñu war di ko loolu mooy lan Amadou Ba mooy reste président chef de l' opposition bu nu demee nag ba assemblée nationale wax ni statut chef de l' opposition méngawul ak siège ci kii su boobaa moom mu génn su génnee ku mel ni Zahra Iyane Thiam mën na fa nekkal coalition jàmm ak njariñ kooku lu xel mën na ko nangu waaye ci jamono ji na ca nekk nekk ci ñu ànd ak moom jël loolu wër Sénégal créé suñu parti ànd ak moom jóg loolu et puis day jëmmal aussi la la coalition parce que bu bàyyee day mel ni moom li ko ay conseillers wax la mais jàpp naa ne les socialistes yi bokk ci boobu duñ ko duñ ko wax bàyyi waa AFP duñ ko wax bàyyi kon coalition bu moo ko dénkaat weesu askan wi c'est très important te moom yaakaar naa ni dafa war a ànd ak siège ak waa socialiste yi ak waa AFP ak moom mi nga xam ne mooy euh, Amadou Ba bi war a créer parti bu bees du ma wax ne nouvelle responsable la tudd ndax parti bees ba xamaguñu officiellement la la war a donc loolu mooy conseil bi nga xam ne daal maa ngi koy jox le président Amadou Ba euh, te jàpp ni nag euh, vraiment mate na ko boo kenn xeeb loolu mu yor bu fekkente ni groupe parlementaire day am et nekk ci Tayor ñaar ñetti député te nekkoon opposition bi te demoon na ñoom intercoalition ñoom waruñoo mën dem dem feneen parce que yóbbaale na ay voix xam ni comme fii ci bi nit ñi wax am na ñoo xam ne noonu bëggoon intercoalition bi ku votel Barthélemy Dias nga Amadou Ba kon loolu ñu fa sànni noonu waruñu koo jël di ko yóbbu feneen kon nanu am grandeur aussi waa Sàmm Kàddu rejoindre am président Amadou Ba rejoindre la coalition Jàmm ak Njariñ foofu la a nekk nag comme dafa am solo parce que ñoom ñaari régime yu jóge la PDS ak AFP eh, eh, safra PDS ak APR ñooñu bu ñu demee dajale seeni force amuñu lu dul fukk ñett comme ni fukk ak eh, juróom-benn te nee nañ ba mu gënoon a yées fukk ak juróom-ñaar lan amoon te at yooyu yàgg na jamonoy Senghor kon ce que veut dire que ni moom bu nu comparé seen bopp ak président Macky Sall ak président Amadou Ba président Amadou Ba li mu am ndamam la ndamu AFP la ndami PS la ndax ñett ñooñu dañuy survivre politiquement donc ak ñi nga xam ñoo ci ànd allié yi waa parti de gauche ay waa AJ ma leen di ak waa PIT kon ñun ñoo am ndam te ndam li nag lii nag mooy coalition bi bi war a defar affaire yi en 2029 kooku moom mi ngi ci biir boobu beneen affaire la boo xam ne dina boobu beneen affaire la waaw ñi war a remplacer gars yi 2029 ah ñoo ñooñu mooy ci affaire bi lay jaare nag su ko gars yi ragalee nga gis la ñu commencé song mm-hmm. waaye ku ci song coalition Jàmm ak Njariñ mais dañuy jënd dinañ ko encaisser politique foofu rek laay wax waa waa waa majorité bi ma leen def kuku di leen encourager et di leen féliciter xam ne yàlla jox na leen lépp nag sénégalais jox na leen lépp nag ah li ñuy xaar ci yéen lépp nag ngeen def ko jërëjëf.